particuliers avec les professionnels. Si vous voulez le professionnalisme, le confort, la qualité et la sécurité, venez voir notre agence immobilière Prévision Immo. Wow, cette entreprise est gérée par un jeune travailleur engagé et déterminé au nom de Traoré, L'agence prévision Immo est focalisée sur deux domaines, à savoir la transaction immobilière et la promotion immobilière. Pour la transaction immobilière, il y a la location, la vente et l'achat. Concernant la promotion immobilière, l'entreprise sera le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le réalisateur du projet. ba risque jël xam kon ñun 33 927 43 07 wala nga def 77 890 30 avec l'entreprise prévision immo votre bien au juste prix. bi ñu sante yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi gërëm di sante képp ku fi teew di ko commencé si journaliste yi nga xamante ne seen di informer juste et vrai di gërëm jigéen yi fi teew tey parce que dama jàpp ne ku xamul lu sa ndey daj sa kër baay jigéen joo nekkal doo ko teral jigéen joo nekkal doo ko aar jigéen joo nekkal doo ko sàmm jigéen joo nekkal doo ko gunge moo waral bi ñuy commencé di ndërmal un week-end un quartier am ñu bokk ak ñun bennoo jàpp na dañuy tappale te ba ñuy taxaw ne dañuy accompagner les femmes yi nga xamante ne ñoo yeewoo fii si Thiès dañ ne woon dañuy yëkkati une somme de deux cent millions jàppale leen ko waaye deux cent millions yi soxlaw ñu intérêt soxlaw ñu pourcentage parce que nit boo koy dimbale da nga koy jàppale te yàlla tax nit sooy ànd ak moom da koy jox doole mooy lan nga yokk ko mu mënal boppam liggéeyal boppam am mën a jëriñ njabootam ak ñi ko yaakaar

bu dee garde corps la am ñu njëgam waaye soxla nañ ko parce que jàmm lañ sekk ak askanu Thiès jàmm lañ sekk ak askanu Sénégal bi ñuy war di wax la ñu dige woon ci yenn koñ yi suñu borom ak ndimbalam matale nañ ko nit mënta matal lépp suñu borom rek moo mën a matal waaye man ñan naa yàlla lépp lu ma digalante ak askanu cees ma mottali ko ci kàttanu yàlla ak ndimbalam moo waral bi may def un week-end un quartier dama ne groupement bu njëkk a pare dinaa ko jox indil ma carnet dinaa ko jox vingt millions mu commencé liggéey bi ma ko waree am ñu taxaw ne loolu du am far ñii mouvement Amazone bi nga xamante ne mooy mouvement jàppoo ànd liggéey ñoom ñoo njëkk defar seeni carnet mënoon na len jox sek waye duma ko def comme dekk bi rew mi dafa tëradi man nay leer masali bëggul lëndëm nay leer saay nay leer masali bëggul lëndëm nay leer saay nay leer masali bëggul lëndëm nay leer saay nay leer masali bëggul lëndëm moo waral waral ma jox carnet parce que bokku ngeen si ñu gëm financement yi moo waral seen 20 millions liquide baa ngi nii ma indi fas yéene ko jàppale pour ngeen liggéey Far Sall mooy trésorier bi danaa ko remettre léegi su ma paree publiquement ngeen gis ko seen xaalis a ngi noonu laajuma leen intérêt laajuma leen dara la ma bëgg mooy may naa leen diir juróom benn weer ngeen liggéey commencé remboursé ngeen fay ko waaye laajuma leen intérêt laajuma leen dara beneen bi si topp mooy bi ñu demee quartier Wango suñu yaayu séeréer si nga xam ne maire Gamou Ndione moo leen jiite nga xam ne maire Gamou Ndione moo leen jiite dañu sollicité woon ne ñun suñu quartier Wango ab teen la ñu am te teen bi ñu am maire yi fi nekk dañoo jukki ba seen loxo yi ndootul jukki ñu ne ma leen de lañu soxla si yow Massaly nga dimbale ñu may ñu pompe mom rek lañ soxla té sa yaay yi toog nga xam ne dañoo root ba seen loxo nagam ñom ñoko bëgg nga dimbalé len ko mané len la ngeen ma ñaan dana len ko défal parce que man awma ma kudul sama wajur bu jigen mané len la ngeen soxla dana len ko défal mo waral ma jënd moto pompe fi mangan di len koy installer moto pompe ngeen ma ñaan mais mangan dina and ak yeen tay dana len ko installer lépp lu ci war ci ay tuyau dina ko fay jëndal len ko ngeen commencé ci katam yalla suñu borom beneen bi mujj mooy ñëpp xam nañ Pa Gueye ñëpp xam nañu adjudant Gueye ñëpp xam nañu imam Dame seen xarañte seen njàmbarte seen gëm bu ñu gëm le président Macky ak défense bu ñu jàppale président Macky Sall fii si Thiès muy si wax sa xalaat yi muy si panel yi muy si débat yi muy si fépp ñoom dañoo liggéey wane ko moo waral ëllëg lundi ci kàttan yàlla suñu borom ma fas yéene leen jox ñetti ma Màkka ñu doon ziar ji yonent sallallahu alayhi wa sallam koy parce que man je fais du concret je ne parle jamais pour parler génne leen lépp ci pochette yi ngeen génne passeport yi visa yi billet d'avion yi journal yi mun ko jël askanu Thiès yëpp gis ko. Cheikh Tidiane Gueye sa bosa ngi nii sa passeport jox passeport. jox ko ak saag bi ngeen wane saag bi ñëpp gis ko. paagay da ngay jóg téye sa saag bi. paagay da ngay jóg saag bi. mi lu ko yàq mooy politique gu naxaate. nit ñi kenn moomu leen. ku leen ñu dimbale la. ku leen nekkal ñu la. ku leen jàppale ñu jàppale la loolu rek moo fi nekk leneen nekku fi man kenn laay taxawu kenn laay jàppale muy suma mag di sama xarit muy le président Macky Sall parce que moo fi kenn mu taful moo fi liggéey lu fi kenn liggéeyul moo fi tabax lu fi kenn tabaxul ku mel noonu askanu Sénégal ñàkk ko danañu ñàkk lu doy waar bu demee tey ba joxoñal ñu la personne du premier ministre Amadou Ba askanu Thiès askanu Sénégal war nañoo takku liggéey ngir fal ko au premier tour ñu continué waat liggéey li nga xamante ne moom la président Macky Sall def man nag sama kàddu du sori li naa ne woon danaa ko leeral danañu continuer liggéey bi Cheikh Tidiane Gueye mooy secrétaire général UPNR demandé ñu carte d'identité demandé ñu dara mom wax na leen banque bi ngeen di dem ngeen ubbi seen carnet su ngeen bëggee liggéey approché len ko liggéey bi ouverture bi la 200 millions yi dañ koy continuer di ko woyal quartier bu nekk danañ fa dem lim buñ soxla buñ ko matalé dinañ len financer de à 10 millions comme ñi ñoo njëkk paré ñom lañuy remettre vingt millions ci carton kattan suñu borom mooy terminer pour demander à l'unité di def appel à l'unité pour la consolidation de toutes les forces vives de Benno Bokk

dañu am ay gan yu bees gan yu bees yoo xam ne dañu bëgg Sénégal soppeeku dina ñëw léegi fasal ko wane ko muy ay démissionnaire yu bokk ex Pastef te mu te Mouhamed Bangoura jiite leen ak cinq personnes fase ñu ñëw fay fii démissionné si kanamu journaliste yi bis ni ki tey dañu ñëw ñu àndandoo liggéey. tëjee mooy. maa ngi dégg des hommes courts aussi de très courtes muy opposition bi nga xamante ne maa ngi siy dégg ab ndaw bu tudd Barthélémy Dias di def ay menaces ma koy xamal ne bul jàpp ne gis ma si caméra yi seen ma Paris da nga foog ne dama fay toog mhm. maa ngi fi senegal ñibbisi naa mhm. dama bëgg nga arrêté tanga nga yem ku génnewul pistolet tiré au si kayu nit kenn du ko accusé koy tu as fauté devant tout un peuple da nga wuy si par force danañ la daan danañ la condamné parce que liñ lay tumaal yow yaa ko def say menace nag la Banga nga arrêté ko jàppal président Maxal, Amna am ay ndaw yu mat ay ndaw am ñu ko matal am ñu mën a république li am na ñu mën a xeexal démocratie ñi fi nekkoon démb tey ñu ngi fi toog ñu yoroon doole opposition bi xam nañ bu baax ñoom ñoo rangé wu tey di jàppale président Macky Sall Barthélemy xam nga man xam naa xam nga ne jinne pesu la te lu mos a pes te dinañ jàkkaarloo yow si kàttan yàlla suñu borom kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen